yaan ku dégg waye tay ji jii mënuñoo ñëw fi ba jóge fii te laaju ma doomu caare yi géej moy kan mi Omar kan rek kan moy Omar kan rek rek wa fofu tamit dina ci profito ndax ñepp nee nañ dama ko contre déedéet wa ndax limay analyser si moom mhm. Omar kan rek rek moy nek mbeur mo xamantene ni yalla da ko may mu complété mhm. si bëri mais tamit bi mi ñëw ci lambu man ci li wax. ci hmm. lit simple. boobu mbëru séeréer buy bëre poids lourd amatul. taxaw waaw. ana Ablaye Ndiaye doomi Robert. boobu Ablaye Ndiaye moment boobu noonu moom ak Reug Reug daan Reug Reug trois. Hmm. Reug Reug daan ko deux. kon su la bëggee dégg li nga bëgg a wax. Hmm. Reug Reug muy feeñ ci jamonoy làmb nekk dégg daani ci làmb. waaw amul maas. amuma ci làmb wul ak ñoom cior Thior wul ak ñom Omar Jalan deug la deug la te bi mi fekk mais nak mais nak mais nak señ bi yow niveau bi ngay waxe ci lamb li simple boy bes bees ni nii la deg wa lolu loolu tax wa 2014 wa as bu ndayan mo daan reg reg final poids basu baasul ndeysaan as bu ndayan kooku la nit ñi foogoon ne moy lëbu bi da bëre ci aduna ndaysan après bu fa as bu ndaayaan jógee. Mhm. ci la rek rek ñëw deux mille cinq bu fekk na ñoom liwi ñu ngi bëri poids léger. deux mille fekk na liwi coor yéeg na poids lu mhm. mhm. léegi deux mille quatorze deux mille cinq boobu fekk na jamono gaal yëpp dugg si gaal yi dem Espagne te noonu comme bi di ñëw benn mbër la fi fekk doon séeréer. muy kan. muy seexu Ousmane Sarr. ak kan. su ma la dollee muy Sélémène. ak kan ba tey def na de. Ah? ndax fekk na Mamady Ndiaye ci ay guddi tamit. Mamady Ndiaye 2005 fekk na ko muy bëre poids lourd 2005. waaw drapeau chef de l'état bi laay njomboor di jël. malal moo ko fa daan laay moo fa daan malal. dëgg la fin de la fekk Mamady. fin de la ko fekk da muy ñëw ci làmb mu ngi fekk Mamady Ndiaye nekk fin de fekk na Louis Thior bi mu koy daan garaawee eh, eh, mais gars yi ci ginnaaw mel ko mu développé waaye li muy wax dafa am solo. fekk na moom Louis Thior. Mhm. bi muy bi ko di daan garaawee sax fekk na Louis Thior a ngi bàyyi bëri. wallaahi wax nga dëgg. bi ko Sékou Diouf di jàpp lambu sookoon di ko poli di ko daan. poli bi nga ko déggee mooy mooy code filage. mu romb waaw code filage. waaw waaw foofu noonu ci la commencé ñëw Ndakaaru bu ko Sékou Diouf daanee Sokone ci la commencé ñëw Ndakaaru ñu teg ci cinq millions. ci la ko mbër gi dugg si. ci la ko mbër bi dugg si pour mu ñëw Dakar nag samp. Mm-hmm. mais boobu usine doole su ma juumut usine doole moo ko fa génne. mooy usine doole bi dëkkoon fii ci ginnaaw. waaw usine doole boobu. Mm-hmm. sangal kam. Mm-hmm. su ma juumul nag moo tax ma ne la rëg-rëg nangul naa ko nangul naa ko mbërëm mais moment bi muy ñëw ci làmb poids lourd dafa rafle poids lourd. yow mii rek yaa baax ci Reug rek ndax yow yow bu ñëpp di coow. waaw avenir am ci làmb ak arrangement mooy ku koy redressé ku naan ko nii la. waaw ndax daanaan dëgg. bu dégg làmb ndax Reug Reug ñett yi dafa daje ci moom. waaw bi mbër gi di ñëw ci moom doole gi daa ñëw ci moom ngemb gi ñëw ci moom. voilà te gis nga Reug Reug waaw waaw Reug Reug mm-hmm. si bëri simple. Mm-hmm. boobu Cheikh mii tey Cheikh mi koy sottil gal waaw boobu Cheikh mu ci Ablaye Ndiaye nekk Ikiri Dakar. kon Cheikh ci Ablaye Ndiaye lañ njëkkoon a nekk. ci Ablaye Ndiaye lañ nekkoon boobu benn booy comme bu ñuy wax momo momo. waaw. booy boobu moo dëkk caalaan kooku moo doon yóbbu Reug Reug ci lambu al il il bi di ko yóbbu Baasul Baasaar Munde. mais momo ba léegi mu ngi mu ngi Reug mais momo mu ci Reug Reug mais dama ne la bi ma lay wax ni hmm. moment bi Reug Reug di bëre poids léger boobu Cheikh nekkul ci Reug boobu mu ngi ci Ablaye Ndiaye. mais bi nga bi nga yëg ci làmb ne Reug mi nga xam moo ci mbapat màgg na ba def benn progression ci li avec frappe. Hmm. Reug nga dégg ñu ne ci benn semaine jël na ci Ama Balde ca semaine ba nga toog mu jël ci Boy Niang jël na Ama Boy jël Ama Balde. ci mbër moo xam ne nii. mbër mu pratiquer simple. Hmm. mbër moo xam ne nii. war a dajante ñaari super ndara ndax Boy Niang bokk na ci mbër yi nga xam ne guddi yi ñu toll ci làmb mbër yi ëpp mantaal ci biir géew. waaw Ama Baldé ci mbër yi ëpp sañ-sañ ci biir géew. dëgg waaye Reug Reug dama ko gis muy mbër moo xam ne nii jàpp na comme jàkkaarloo moo la mën loolu bu bu bu ko yëgee loo yëg. bi ma yëgee ne Reug Reug jël na. Boy Niang dama ne bëri ngi doog a feeñ ci Reug Reug. ndax lan. voilà ndax Boy Niang dafa jógee si defet boo xamante ne nii. Mm-hmm. da ko woon yoonu lamb. su ma la déggee da nga bëgg a xam ne Boy Niang ko def mbër. Modou mooy def Modou Lo moo def Boy Niang mbër. ñëwal ci loolu. li tax ma ne la Modou mooy def Boy Niang mbër. Mm-hmm. Boy Niang xaw ma lu ko rek rek di ubbi ci lamb ji mais du doon doole. laa ilaha illallah muhammad rasulillah. est-ce que yaa ngi dégg. ba tey dégguma de. nga ne. Boy Niang waaw xam lu ko Reug Reug di ci lamb ji mais du doon doole Omar Kane Reug waaw bi ne ku jàkkaarloo ci lamb moo la mën waaw nga ne Boy Niang numéro deux xamu lu ko Boy Niang li du doon doole bindal tey bind maa bind ko tey lay wax ni yëpp bu ko Boy Niang defee gis bëre boo xamante ne nii yuux mun naa jib fuñ ko bo Reug Reug mu bëri Boy Niang bëri Ama kenn la ci gën a nekk à l'aise. boo bëggee dégg-dégg si si ñaari combat yëpp bu ci nekk à l'aise. Reug di diggante Boy Niang ak Ama mu mënu cee nekk à l'aise. dina manifester wu ne mu ngi à l'aise mais ci xelam nekkul à l'aise. lan moo nekk foofu ci ay danger yu tax nga ne Reug Reug naa bëri Boy Niang ak mën naa bëri amaa Baldé te du ci nekk à loolu dama bëgg tamit. en tant que ndaanaanu làmb nga ñëw ci. gis nga boo Niang. dafa nekk mbër moo xam ne xeexam dafa assuré. te bu la njëkkee jekku si poñ da daanu. Mm-hmm. te rëg-rëg saa yu bëri si léeg day yokk poids boo xam ne day upp day nëbb bëri waaw poids boobu muy indi saa bi rëg-rëg indi day nëbb bëri bi nekk ci moom day nëbb bëri bind ci moom. tey jii da nga taxaw ci ñaari point hmm. su ma la déggee da nga bëgg a wax ne booy Boy Niang numéro 2. Hmm. taxawaayam ci làmb mooy gën a baax taxawaayu rek rek ci biir géew. ci combat bii nii. waaw. Boy Niang bu ñëwee ci làmb. yow mi se di xam ne Boy Niang ak bi bëre woon ak Modou ak booy ñaar bi bëree rek rek bokkul. non bu ñu bëree woon ak Modou Lo Boy mbër moo ñëwoon. waaw waaye bii di di ñëw booy ñaar professionnel mooy ñëw. te bu sul ba di nga gis benen booy ñaar. lan la lan mo nekk ci booy ñaar ak rek Reug li mo wane ci lutte simple ak li mo wane ci avec frappe al bëri bi ko yalla may ak rek Reug bi mu nekkee ndaanaan ci biir ndox tu bëri tey ji nga indi ñu lool ndax dafa bëree ak ñom te dajé wul ak ñom ba tey dégg gu ma la de. rek Reug dañ ko laaj mu ne mo xol maamun ñëpp. waaw. kon yow bëri nga ak ñëpp te dajé gog ñom damaa laaj Ama Baldé. Hmm. bërki démb. ma hmm. ne ko Ama. ma ne ko bi nga jëlee ba léegi. adversaire yi nga am yëpp. dëgg ma ko Ama adversaire yi nga am yëpp. rëgg rëgg ci sañ-sañ. Hmm. mu ne ma ñaari combat yii may waaj a bëri du ma ci am bu du ma ko bëree bu nekk une minute. man de naa. ma ne ko tax wax ma loolu mu ne ma Gris Bordeaux sama diggante moom bu arbitre sifflé damay dox ñaari pas taxaw ci diggante ñaari tàggam xeex ak moom jëli ko. Hmm. mu a ma Reug Reug sama combat ak moom ma gën a yomb man nag loolu jaaxal na ma ndax man Omar Kane Reug Reug daf maa yéem lool. ndax am na la ma wax ci booy ñoom mooy diggante Ama Baldé ak Reug Reug loo ciy wax. digante Ama Balde ak Reug Reug waaw ah Ama Balde dafa nek mbër mo xamanteni ne gox la hmm te comme li léegi comme li Reug Reug gëm ci lamb mom la Ama Balde gem ci lamb lan la Reug gem ci lamb te Ama Balde gem ko moy mystique la Ama gem mom la mom la Reug gem <laughs> ah waaw loolu ànd naa ci ànd naa ci loolu ah. ñaari mbër ñaari mm-hmm. mbir yi ngemb lañ té ama amna sañ sañ def mystique bu né mais rek rek amna sañ sañ def mystique bu né fofu yaa ngi dellu si ci diggante gàllaaj waaw té mm-hmm. gis nga jour bobu ding ci ding ci gis bëre bo xamné ni ndaysan nga ne bobu bés boobu maa ngi am na ay combat tey jii da nga da révélation. Hmm. nga ne Reug daa bëri Boy Niang ak Ama Baldé te dajawut ak ñoom. lu leer laa lay wax. gis nga Reug Reug bi muy dajee Sa Thiès. waaw. man maa woo woo jàmbaar ne ko Sa Thiès da koy daan. ndax lan. man xam naa fi ma ko tegoon ma oo maa Abdou ma Abdou Mara. waaw ma ko Reug Reug Sa dina ko daan ma ko yëkkatil yëkkatil sa xaalis nga oo Cheikh mu teg cinq millions yu mu doon teg Sa Thiès dina daan Reug Reug mm-hmm. ma ko ah ma ko premier song bi Sa Thiès daan ma laaj leen waaw da am benn affaire bu ma topp boo xam ne ñu bëri xamuñ ko. Hmm. bii rek rek di tuus ba mu mongom di def galangu cosaan boobu. waaw lu tax Sa Thiès génn bi. la. kon rawaxaan yi nga doon wax ci làmb kon am na. dafa wër waxuma la am na de daa wër am dëgg. amantuwul ndànk sax gis nga Balla Gaye danañ ci ñëw bu laal foofu danañ ci ñëw. waaw donc foofu la ñu tëjee. gis nga Sa Thiès. Mhm. ci ko bi Balla yor moom la yor. Mhm. waaw Sa Thiès saa yoo koy limal mbër ne ko tey nga dee mbala tey la gaa yi foog ne yow mii mooy loolu jour boobu la gën a ñeme mbër bi te boo seetloo dafa indi handicapé rek rek keroog jour bi ñuy bëre. waxuma la si beneen domaine bi ma doon waxee de mais ci domaine bëre bi sax dafa sonal sa ndax man bi combat boobu taxawee dama ne Ibrahima Faye Beuz combat Reug Reug Sa Thiès leen rek laa ciy wax. Hmm. Reug Reug am ku mënta daan. Hmm. waaye leen rek laa ko ci jël ci làmb jël. Hmm. bu dix huit heures quarante cinq bi jotee ba Balla Gaye dugg ci làmb ji. waaw loolu maa maa la doon déglu maa la doon seetaan. te Balla Gaye dix quarante six la dugg si ci làmb waaw loolu wër na. te Balla Gaye bi mu dugg ci làmb ji ci la làmb ci la Reug Reug fàtte ne Sa Thiès la waroon a bëreel. waaw ci la énervé la ciblé boobu la énervé wu. boobu boobu la génn ci làmb ji ciblé léppam Balla Gaye mais tey jii Reug jël na Ama Baldé jël na Boy Niang. Mm-hmm. ndax Pikine bu ñu nekkul benn lim Modou Lo réussir ci communication biir Pikine ci coow wax ji. combat boobu ndax Pikine jotul seen mantal yi nekk. ben ndax ki ñi bëreel mbeur la mu am ngemb mbeur mo xone lamb jaral na ko lu ne te mbeur mu mën gis la mi reug reug omar kan yalla ko yalla ko wacce ci lamb mom omar kan hmm day déranger mbeur kamil la mbeur kamil la yi mm. mais pikin do duñ <laughs> waaw loolu moom mun naa la ko wax tey. ndeysaan. goxu Pikine nekkuñu bëri yu mbala bu amee ci kenn lay doon. ndeysaan. waaw. boobu jour boobu daal. non dugg bu dugg dugg foofu. maa ngi ko côté <laughs> waaw nañ ko côté. ndax foofu àgguñu fa te dinañ ci waxtaanaat. waaw.